C'est juste pour euh, célébrer l'anniversaire du premier congrès du Parti démocratique sénégalais, comme vous le savez. Le premier congrès s'est tenu en 1976, 30, 31 janvier et 1er février 1976 à Kaolak. Donc le PDS euh, fête, le 42e anniversaire de son congrès. Et comme vous le savez aussi, Thiès constitue l'un des bastions les plus importants du Parti démocratique sénégalais. C'est pourquoi la Fédération nationale des cadres libéraux a organisé cette conférence avec la présence de tous les responsables du parti, des partis alliés et des mouvements de soutien pour exprimer sa reconnaissance aux anciens qui sont là depuis 42 ans, sa reconnaissance à la ville de Thiès, mais surtout attirer l'attention du peuple sénégalais sur les dangers qui guettent ce pays par rapport, euh, au, par rapport à ce régime qui veut véritablement organiser des élections sans les candidats essentiels, dont le nôtre, qui est le frère Karim Wade. Donc nous sommes venus préparer le terrain, préparer nos militants à tout ce qui pourrait arriver si notre candidat, la candidature de Karim Wade n'est pas validée par le gouvernement de Macky Sall. Karim Wade est candidat du Parti démocratique sénégalais pour l'élection présidentielle de 2019. Il reviendra au Sénégal, Inch'Allah, durant l'année 2018. Il battra campagne avec nous et nous espérons qu'il sera élu dès le premier tour, le 24 février 2019, Inch'Allah. Vous avez entendu pas mal de responsables du camp adverse parler de beaucoup de choses, particulièrement disant que s'il vient dans ce pays, il devra payer, au moins il doit à la justice ceci ou cela. En plus de cela, vous savez que Karim Wade a été exilé de force au Qatar et récemment, vous voyez aussi des articles de presse qui parlent de l'Allemagne, Freeport, qui parlent de, de la Banque mondiale et toutes ces choses qui font qu'il y a des menaces réelles sur la candidature de Karim Wade. Et ces menaces sont liées au fait qu'aujourd'hui, c'est l'homme politique le plus populaire du Sénégal. Et le président Macky Sall sait très bien qu'avec la participation de Karim Wade, il n'aura pas son deuxième mandat. Nous soupçonnons un coup de force et nous nous préparons à résister à ce coup de force. C'est ce qui exprime d'ailleurs nos brassards rouges pour exprimer notre colère, notre mécontentement par rapport à la gestion de ce processus électoral. D'abord, comme vous le voyez, nous sommes en train, en train de conscientiser nos militants, de les mobiliser. Le 9 février, nous allons organiser une marche à Dakar avec l'IED, l'initiative pour des élections libres et démocratiques pour attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur les dangers qui guettent le Sénégal. Et à partir de là, une stratégie sera déroulée pour avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Élections libres, démocratiques et, transparentes signifiant pour nous la participation du frère Karim Moïse et la participation de Khalifa Sall à ces élections. Nous disons que l'expérience nous a montré que toutes les élections au Sénégal qui ont abouti à, à une alternance ont été organisées par des personnalités neutres qui n'appartiennent à aucun parti politique. Donc nous avons demandé, comme l'opposition l'avait demandé d'ailleurs, qu'il y ait un ministre de l'Intérieur, organisateur des élections, qui ne soit pas membre du parti au pouvoir. Enlever Abdoulaye Daouda Diallo pour mettre là-bas Ali Ndiaye, c'est du, du pareil au même. Et nous n'avons jamais demandé un militaire, encore que s'il faut un militaire pour avoir des élections libres, transparentes et démocratiques, pourquoi pas Mais nous voulons quand même qu'il y ait un processus transparent garantissant des élections libres et démocratiques. Et nous récusons effectivement aussi bien le ministre de l'Intérieur, Alingou Ndiaye, que le médiateur, Nourouba. Parce que eux tous, nous savons et nous avons des preuves qu'ils sont partisans, qu'ils sont dans le camp de Macky et que s'ils organisent les élections, D'abord, le PDS l'a dit avec une conférence de presse du frère secrétaire général national. Le PDS ne participera jamais plus à des élections organisées par le pouvoir de Macky Si le PDS ne participe pas aux élections, si Karim Wade n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. C'est ça le principe. Pour qu'il y ait élection démocratique, libre et transparente, nous attirons l'attention du peuple sénégalais, nous attirons l'attention des responsables religieux, sociaux, nous attirons l'attention de la société civile mais nous attirons surtout l'attention de la communauté internationale qui nous aide dans l'organisation de, ces élections, à savoir l'Union européenne et les États-Unis, pour qu'ils fassent la pression nécessaire sur Macky Sall pour qu'il discute objectivement avec son opposition constituée par le Parti démocratique sénégalais et ses alliés, aboutissant à un code électoral consensuel qui garantisse des élections libres et démocratiques et, et, et la participation du frère Karim Wade à ces élections. Voilà.

donc ñu ñu dellusiwaat Thiès muy dëkku de dëkku xeex dëkku politique pour euh, sargal ancien wu parti bi loolu le premier point bi Nous combiné ko l'antenne départementale de Thiès bi nga xam capitaine Nyan, moo koy diriger organiser fi conférence sur les élections le processus électoral sous frère frères Sy animé ko li tax ñu c'est ko moom mooy dëkk bi dafa am tolluwaay boo xam ne Macky Sall dañoo jàpp les élections pour am son deuxième mandat dégg ngeen mu il va gagner avec 60 pour cent mu wóor ñu ne bu élection yi jaaré yoon ñi wara bok ci élection yi bok ci élection yi Macky Sall du dem deuxième tour lool wóor nañu ñi wara bok moy Karim Wade ñi wara bok moy Khalifa Sall ñi wara bok moy doomu Sénégal bo xamné ne nga né war nga mëna jité réew mi ñu bayyi la nga dem élection peuple bi choisir Macky Sall nar a nangu kàddu peuple bobu pour jall élection yi ñun lool la ñuy bañ motax tay ñu ñëw waxtaan ak suñu militants waxtaan ak waa cees mais aussi waxtaan ak waa Sénégal ne leen Macky Sall li mu nar bugg ñu ci jógul ñu ñëpp dina yóbbu réew mi foo xam ne neexuñu loolu moo tax ñu ñëw tey Thiès waxtaan ak nit ñi pour yee leen pour wax ak ñoom pour que ñu xam ne élection yi ñu jëm am na solo lool ci Sénégal et dañ ko war a teg ni ñu ko daan defee jaarale ko ci yoon ba benn problème di ci am. mënuñu invalider candidature Karim Wade parce que mënul nekk moo tax d'ailleurs ñu teel a jóg nii Karim Wade dina ñibbi Sénégal incha allah ci biir année bi bu ñëwee dinañ campagne ak moom. mais bala muy ñew ñu ngi préparer ay marche tay def nañ manifestation dinañ def yenen manifestation pour amener le pouvoir bi mu tok waxtan ba ñu régler problème yi am le régler problème Karim Wade ba nga xamné dina nek candidat battre campagne dem élection régler problème Khalifa Sall mu nek candidat battre campagne dem élection ak ñeneen ak ñeneen bu ñu doogee ba 18 h ñu tej urne mais ku ku réew mi né ki ñu pour jiite mais nit ñi top ci gannaawum mais vous bëggé éliminer ay candidats téye ay carte d'identité nam ministre de l'intérieur boo xam ne maire APR la fa mu nekk nekk un grand responsable de ton parti te ñu xam ne élection yi fi am alternance yëpp ñi ko organiser ñu ci benn parti ñu ne la dindil ko nga teg fa koo xam ne bokkul ci parti ñu auditer fichier électoral bi avec l'aide de l'Union européenne et des États-Unis pour que fichier bi leer lépp leer ñu dem élection mais ku ku réew mi ne yow la ñu wóolu kooku jiite réew mi mais diw du bokk Masamba du bokk Mademba du bokk damay téye carte d'identité yi nga xam ne faruñoo ak man jël ministre de l'intérieur boo xam ne yow la faral jël médiateur boo xam ne yow la faral ba pare ne dañuy dem élection loolu la ñu d'accordul ne du fi amee donc il faut ñu régler problème yooyu balaa ñuy dem élection pour que réew mi daal parce que li ma koy waxee toujours alal bi gën a rëy ci Sénégal mooy jàmm ak salaam bu jàmm ak salaam amul ci dëkk bi euh, dara mënu fee am te gis nañ dëkk yi ñu seex yoo xam ne seen fitna ci élection la jógee loolu la ñuy bañ mu dal Sénégal moo tax ñu teel cee jóg pour wax nit ñi ne fii lañ jëm nañu ci taxaw ba Macky Sall li mu bëgg bañ a am pour que réew mi dal parce que bu bu jëmee fi mu fi mu teg tànkam nii bu ko teggiwul mais dinañ jàkkaarloog moom dinañ jàmmaarloog moom dinañu xeex xeex bi mu war ba sunu candidat may Meïssa Wade nekk candidat incha allah en 2019 dama ne loolu am na waxuma ne kandi Karim Wade bu nekkul dam dañu ne condition yi nekk nii bu fekkee yi ñu organiser élection législative madame, falum député yi condition organisons. ko organiser même condition la nous nar l'élection élection présidentielle élection du am Sénégal parce que élection bu PDS bokkul du élection ci Bir dëkk bi donc loolu moo tax ñuy def marche pour attirer attention nit ñi loolu moo tax ñuy conférence tey conférence suba conférence gannaaw suba nekk ci télévision yi ak radio yi di wax li ñu mën jëf di di am donc ñu yaakaar ne président Macky Sall dina xam ne moo uuf njaboot gi yëpp fexe ba wax ak opposition bi nga xam ne mooy opposition significative ma xamal leen ne ñi muy waxal ñuy wax ni dialogue national boo leen boolee ñoom ñëpp il ne représente pas 5 de l'électorat du Sénégal et xam ngeen doole PDS ak ñi mu àndal au minimum au minimum le PDS c'est 25 à 30 de l'électorat sénégalais donc bu ñuy wax opposition PDS la ku bëgg régler problème politique ak problème élection ci Sénégal il faut nga wax parti démocratique sénégalais te loolu la président Macky Sall di parce que mënuñu dem waxtaan ba pare mu def na mu defoon tànn li ko neex la neexul am garantie nous ñu conclusion yi génn ci waxtaan boobu dinañ ko appliquer. te li koy firndeel ma wax ni yëpp li koy déjà même ñi demoon ci dialogue boobu amna période boo xam ne dañu retiré parce que Macky Sall am galgal yu parrainage caution ak yeneen ak yeneen yu mu teg yoo xam ne day fexe ba benn candidat bu sérieux du jàkkaarloog moom te loolu aussi du démocratie du liberté de choix donc peuple bi moo souverain dañu bañ Macky Sall nangu souveraineté peuple bépp pour imposer ñu boppam donc dañu bëgg souveraineté bi delloowaat peuple mu tànn ku ko neex mu falu président de la république du Sénégal. taalibe sëñ Fallou di xaritu sëñ Abdou Karim Mbacké nekk député à l' assemblée nationale sama deuxième mandat en même temps. Nek la responsable nationale chargée des femmes du parti démocratique sénégalais donc je me suis ci je daf me rappeler au moment bi ñuy opposé parce que depuis 1974, je suis avec le président Ward. donc parti animation là, parti parti mobilisation la parti information la donc euh, demain il Cheikh Cersec, le secrétaire général euh, le président bu cellule des cadres libéraux di aussi

Nous n'avons pas de plan B, nous n'avons pas de plan C, nous n'avons pas de plan Y. On n'a pas besoin d'une femme qui porte un foulard ou bien un homme qui porte un pantalon. Nous avons un seul, un seul objectif, c'est élire. Notre seul objectif, c'est élire Karim en 2019 à la magistrature suprême de ce pays. Donc vraiment, c'est une soirée qui s'est très bien passée, machallah. On remercie tout le monde. On vous remercie aussi, vous les journalistes, parce que c'est grâce à vous que l'information passe partout dans le monde. Donc on vous remercie. On prie pour vous que vous ayez réussite. Vous pensez que l'opposition peut réunir les 25% pour amener Macky au second tour Moi, je crois que le PD peut réunir 25% pour amener Macky Sall au deuxième tour. Pourquoi Parce que le président Ouad a bien fait pour le Sénégal. Il a beaucoup fait pour le Sénégal, c'est un visionnaire, il a tout fait pour ce pays. A plus forte raison qu'il soit secondé par d'autres partis de l'opposition qui viennent qui viennent s'unir autour de l'essentiel. Leur seul objectif, c'est faire partir Macky de la tête du, de, la tête du pays. votre candidat Karim Il est toujours candidat. Il est aujourd'hui le candidat. Il était hier. Il est aujourd'hui le candidat. Il sera le candidat et le futur président de la République du Sénégal. Inch'Allah, je ne peux pas vous dire la date. Mais ne me parle, ne me parle pas si, qui, va, qui peut ne pas accepter sa candidature. N'est-ce pas que le, ministre, euh, le juge Henri Grégoire Diop a tenu une conférence de presse après sa condamnation de dire que Karim est bien éligible. Donc je ne pense pas qu'il va qu'il ne va pas se dédire normalement. Donc je crois personnellement et c'est ce croit, c'est la confiance de tous les Sénégalais. Karim est bel et bien le candidat du Parti démocratique sénégalais et futur président de la République du Sénégal. On lui souhaite bonne santé, on lui souhaite, on l'encourage, on le soutient et on souhaite à son père, l'homme africain, oh oh, le, celui qui est, qui est habité à faire du social dans ce pays, celui qui a de l'émotion envers les Sénégalais. Celui qui a tout fait dans ce pays, on lui souhaite une santé de fer, on lui souhaite longue vie, ainsi que sa maman Viviane, pour qu'ils nous accompagnent tous les deux à au Palais de la République pour la passation de service entre Karim et Maki. dama wax ni ah, avant tout damay nuyu ñi nga xam ne ñoom lañ leen fi fekk góor ak Mak, mag ak ndaw seen taxawaay ci parti démocratique sénégalais di gërëm ñi nga xamné ñoo fi nekkoon bu yag ñu nekk ay tout tank ñun di dik di leen fekk di di di di ñaanal Boubacar Sall. le lion du Kayor parce que sunu xarit la doomu ablay wad la no daan ànd di xex yalla ñew jël ko yalla nako yalla xare aljana firdausi encore ma cité ci kenn pour ne pas aller trop loin moy Adja Thiané Lo Thiané Lo aussi buñ masaane ñëw Thiès ca jamonoy sécheresse boba xalaatuñu ñu ne dinañ dem pouvoir dañu buñ dalul kër Boubacar Sall këram la ñuy dal momit yalla jël ko yalla nako yalla xare aljana donc di nuyu yit nak ñepp ñi nga xamne ñu ngi fi nekkon fi te joguñu fi comme man am conviction am une loyauté de leur parti loyauté envers le président Wade nung avons koy <laughs> am fidélité manam gum ci Ablaye Wade bëgg parti bëgg seen bop, bëgg seen deret bëgg seen réew ñom itam ñu ngi fi tok, lu leen neex parce que pouvoir mënul dajal ñëpp ñu ngi toog kon ñoom itam ñu ngi leen di félicité gis naa saal bi sama yaram dafa daw. PDS wane na boppam ci législative yi ñu génn léegi euh, ndax seen candidat dina ñëw yow lu tax nga ne du ñëw bay leen dina ñëw lu tax du ñëw mooy sunu candidat congrès lañ ko fal Karim deewul doful fii la dëkk waalo gii la dëkk Karim day ñëw day ñëw day campagne dañuy ànd ak moom dañuy wate dañuy gagné Serigne Touba jox nañu réew mi lu nu yaakaar serigne touba lañ koy ñaan lu nu yaakaar alhaji malik lañ koy ñaan lu nu yaakaar ñeneen ni serigne chef religieux ci réew mi lañ koy ñaan nañ loxo di ñaan yalla karim wad dik jël réew mi sénégal yi nak nak nak tuti natangi deug ah way koku nak euh, c'est le PDS yow sa xam nga natangi deug c'est le PDS amna ñu ci genn nan ngeen def euh, pour gënaat euh, parti bi kan mo genn ci PDS ah non on ne parle pas de Baraya Baraya n'a pas quitté le PDS non bu ko waxati Baraya dafa dem pour les intérêts de Saint-Louis parce que élection législative yi bu fekkonte né Baraya élection municipale la Baraya serait aujourd'hui le maire de Saint-Louis il a une base à Saint-Louis dafa dem en tant que patriote dafa dem en tant que taxawu ay nitam dafa dem en tant que intérêt buñ né dañ koy andi ndar loolu yóbbu Baraya Baraya ak la wa ñoo bokk mam jabaram papa jabaram ak Abdoulaye Wade ñoo bokk maam kookoog man danoo soudé wu kole du nu dem kan ci Sada Ndjay dem bi mu dem Sada Ndjay nak mom pour dire vrai bëgguma wax ay waxam dama am gatché dama am naqar je n'y croyais pas xam nga ni defal lëndëm dama am naqar dama am gatché te sama nijaay la mosuma ko sàllalu nak sama yaay njaay la sant bëgguma wax ci mom su ko waxee damay am lu may sentir donc dem bi mu dem ça n'engage que sa propre responsabilité en tout cas moi je suis là je suis là comme le nez sur dans la sur la figure. je ne bouge man maa ngi nii dem ma pousse ma ma dal man maa ngi man du Jean du Paul man je suis Wade Wade la Abdoulaye Wade la. man waaw bu sama xel dal lu may wax. enseignant yaa ngi geraw médecine a ngi geraw élève yaa ngi geraw morceau rouge yi fuñ fuñ jaar koj waaj yi ñu jaarale ko ca pot ba ii lu lu may tiit man de bu ma nelawul nag ba yandoor ak taxaw kon na nga xam ne gëwuma yàlla lanu 2011 nuy cinéma ki sama xarit lanu xeeñoon 2011 ba nu jóge fi waxtaan ak opposition bi li leen daloon ci législative bañ leen dal c'est-à-dire lu demee nan euh, xam nga kenn ku nekk ak sa ak sa ak sa sa nga gisee nun li nu gis mooy àndandoo Ablaye Wade est un fédérateur boole njabootam boole ñu opposé parce que benn objectif principal képp lañu am muy faire quitter le président Macky Sall à la tête de cette magistrature donc dinañ ci woote te ñu ngi ciy waxtaan démb rek à Guédiawaye 23 partis de l'opposition ñu ngi ñew taxaw ñu def assemblée générale pour préparer la marche du 9 dañuy ñaan kañ yalla bu ci seytaane dugg nak ndax seytaane mom sew na lol, tubaar fa kala te mëna yaq ay amna ñu yalla musal ci seytaane yalla bu ci seytaane dugg rek ba ñu jubo am nañ ci yaakar ben objectif lañ am yalla nak moy joxe pouvoir xam nga ñun dañuy wax rek nak l'homme propose je dispose falu ak folliku kenn yor ko yalla ko yor donc ñun danañ am tawhid bu tol ne ñep ëmbante ak ñep ñaan yalla li dal yaay jàmme way bu mu joge fi nañ lu senegal aussi mu dal nu nak nu abal ken ken tous contre ken rek nanu bolo nak yalla yalla tapé xoli yow kula wax kan banu yegg ca xam nga suñu fem duñ ko wax nun dañu bari pax de jenax lan dañu bari pax nañu waxoon kenn ko tëj waaye Macky denc na ko rëbës waaw xam nga Macky tejul ken da Khalifa Sall ci mujj ndax ku sa wuji sëlëm do rafet do set Macky Khalifa Sall ci mujj kon loolu mom amul solo xam nga itam sama papa dafay faral di wax ni ñett bu dalee doomu aadama na xam ne du kenn yàlla la nee na reer ba suur fanaane hôpital nee na du kenn yàlla la neena na reer ba suur ñu laxas la yóbbu ca morgue ba soo ñu yóbbu la jébbale sa borom Touba nee na du kenn yàlla la nee na léeg-léeg ñu tëj nit tëj ko ba ci yàgg ñu ubbi ko mbayangal ko ne deful dara duggeen ko dégg ci rajo yi moom de tëj nañ ko nangami am ak ku doon wax barki dem euh, kii 6 ans moo jëkkëram ne deful dara donc am na loo xam ne nattu la te il fallait que Karim dugg pour xam àddina waaw xam na àddina sax ndax macha allah c'est un intellectuel de classe exceptionnelle mais il fallait que mu dugg pour xam dëgg-dëgg lan mooy àddina ñun tëj bi dañ cee rafet ndax xam nga lu tax kenn meru ci. Karim jooyul. ku la wax ne jooy na waxul dëgg chaque lundi je suis là-bas jooyul bindiwul jàmbatul bopp buy metti néewul biiram day daw kenn yóbbu ko pavillon sanitaire demul fenn mu ngi toog ndax li mu doon ca kër baayam ca gànjo rek loolu la Karim wane ca ca ca Thiès natt nag bu ko yàlla tuddee ci yow mbaa ko ci man mbaa keneen kon mënu ci dara waaye li am solo génn rek am ndam en fait c'est Mohamed Lamine euh, Massali président de la fédération du parti démocratique sénégalais ici à Thiès euh, candidat de la coalition Manco. gagnante. Euh, coalition gagnante Wattu Sénégal et, ma proposition s'articulait sur cinq points la validation de la candidature du candidat qui a été déjà désigné, le frère Karim Maïsawad, Deuxième point, exigence de l'audit du processus électoral en présence des trois partis politiques, des trois partis, l'opposition, la société civile et le pouvoir. Troisième point, installation du bulletin unique pour éviter l'achat de conscience, exiger la distribution effective des cartes d'identité biométriques. Quatrième point, superviser les nouvelles inscriptions qui commencent le 15 février prochain. 50 points installés dans les quartiers des brigades de vigilance pour qu'il n'y ait pas de fraude. Et euh, pour terminer, demander à nos frères et sœurs du Parti démocratique sénégalais que l'heure est à l'unité pour la consolidation et préparer la venue de notre candidat Karim Meissawad. Wow donc biñu waxtané fi conférence bi nga xamantane suñu frère cadre organisé ma proposé ci won juróomi patch ben bi pour ñu valider suñu candidat la candidature de notre candidat Karim Maïsawad. Nous avons bi ñu exiger pour ñu auditer processus le fichier eh, électoral bi en présence ou présence bi nga xamante ñetti yu nanc election yi ñoko wara téwé muy parti politique yi euh, société civile ak pouvoir bi nga xamante ñom ñoy organiser élection yi ak instauration bi nga xamante mom lañuy exiger muy bulletin unique bi pour ñu mëna moytu tiatchi ak jënd ñi nga xamante ñom ñoy voter ñentel bi moy ñu superviser les inscriptions yi nga xamante mu ngi commencer ci fukki fan ak juroom ci mois de février bi ñuy dugg ak it juróomeel bi ma ne nañu installé ay brigade si quartier yëpp quartier bu nekk nañu créer ñaar fukki ndaw ak juróom pour ñu mun a sécuriser li nga xamante ne mooy fraude bi ak carte d'identité yi ñu nangul ma ko muy rapport boo xam ne war nañ koo tënk pour jébbal ko vingt vingt trois partis politiques yi nga xamante ne ñoo war a jàkkaarloog nguur gu télé gi fi nekk.